lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. waa salaamaaleykum euh, damaa bëggoon participer ci émission bi. te dama ko déglu internet yi franchement ah non dama choqué wu quoi ci intervention bi ngeen jël di ko di naan Mariam dafa am dëgg dafa am dëgg mais Mariam fan la amee dëgg fu mu amee dëgg laa gisul del départ dafa fos xam na ni bu baa këru jàmbu lay dem te këru jigéen lay dem tëdd ci lalu jigéen ah ba ñëwaat naan day seyaat ci biir kër gi ngeneen mari mam dafa war a mën a am jàmm mais man internet yi man je vous pa pas man lu tax non jigéen jigéen moo war a bañ lii ay ñaareel ak ñetteel da ngeen ko war a bañ ñaareel bu ñetteel amee mais na dem ut beneen kër mu dëkk fa ka kër boo xam ne fa la fekk aawo aawo fa la fekk moromam jigéen ah comme moom di ñëw di fa def yu mu fay def ba pare mu ñëwaat mu ne encore day sëy ci biir kër googu ba pare di defante en plus ba pare ñi ngeen koy jox ngeen koy jox raison quoi non mais man fu ma jëm ak dëkk bi ah non je suis man maa choqué tey man maa choqué man non man damaa choqué tey ah mooy wax mu naan maram dafa am dëgg ak maram amul dëgg ngeen di wax ni maram man maram fu mu amee dëgg laa xamul maram dina sonn ci biir kër googu. parce que ak nit moo koy dal loolu jigéen waru ko def lu salte la maram def lu salte loolu na ngeen jël loolu nga loolu dëgg la non mais c'est pas possible c'est pas possible je rêve quoi. balaa ma ni balaa may dee ngeen di jàpp Noura di ko xasa c'est une enfant mal élevé mais un enfant qui a pay ay di détruire enfant sam di détruire à cause de lan affaire ñaareel ñetteel yooyu ah nekkuloon di xool Noura ndax elle un problème psychologique ngeen ni naan Noura a réew non mais non mais c'est pas possible quoi mais c'est pas possible d'avoir des mentalités comme sa quoi loolu nan la mënee am quoi xale bi jëluñu ko sax jéemu leen soo xool nan la ñuy def sax pour mu bañ affaire bi bañ ko def blocage wala choc ngeen di nekk foofu naan Noura dafa reew ah bon. away ah ñaareel damaa fàtte sax da ngeen bëgg tellement di sàcc jawar jëkkëru jàmbur yi ah ba ba yëf yi yëf yi daf leen neex tellement defante quoi defante affaire balaa jigéen balaa balaa muy mën a sëy sëy bu neex il faut mu am defante quoi mais n'importe quoi n'importe quoi non je en colère tey moom dama dégg seen seen seen sen seen kii d'habitude musuma intervenir mais ba ma déggee seen seen seen wax yi dama choqué man film bi choqué wu ma may seen seen intervention moo ma choqué c'est pas possible. et puis da ngeen fàtte sax Noura dafa nekkoon xale bu paisible waaw parce que yaayam elle était tranquille dans sa maison avec son père et sa mère ñoom ñaar ñëpp nekk mu nekk xale bu paisible. waaw di jàng jàngam di ree ak ji di rek yaayam tey reewatul ngeen ñëw naan dafa dafa réew parce que pap ji dafa takk ñaareel donc absolument dafa war di signe quoi war a accorder lépp la ñaareel quoi ah may wax mu naan euh, nuura dafa réew dafay defanteeg euh, yaayam lay defalante man balaa maa dee jigéen sénégalaise balaa mu sëy seyam di neex il faut mu defalante waaw il faut mu am kenn jigéen boo xam ne da koy gis mu nekk koy puusam muy mën di naan day day sëy vraiment so day day mën a sëy sëyam quoi c'est pas possible xanaa xanaa la majeure partie des femmes sénégalaises dañu dañoo ragal yor seen jëkkër ñoom kase wala wala ñaareel yi yéen da ngeen ragal ku am jëkkëram moom kase balaa seen sëy ne ay faut ngeen defalante quoi mais c'est pas possible je rêve je rêve non bu ma dégluwee émission bi ah non non mais tey moom dama dama déglu émission bi sama xol bi dafa dafa dafa metti quoi man xaw ma noo ngeen di gisee mi bi mais c'est pas possible d'avoir des mentalités comme ça c'est pas possible